sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala jamici alihi wa sahbihi ajmain mbokki jullit yi nuy déglu sunu kàddu di bawoo fii ci Safina FM 98 point 2 ci Scat Urbam ñu ngi nuyu mbooleem auditeur ak auditrice rajo bi ñoo ngi jiital ci nuyoo bi Thierno Hamidou Ban tabaarakallaahu di ko ziar di ziare ak di nuyu sunu directrice Xadi Ñuma ak sunu technicien Samba Si di beral nuyoo mbooleem personnel bi nekk ci rajo bi moo xam ay aïma la moo xam ay asatida la di ñaan yal na yàlla jàppale ñépp tabaarakallaahu sunu émission bi ñuy wax an nasiha muy firi laaye biir e tabaarakallaahu laaye biir dafa am waaraate am waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na diine daal laay biir la kon tabaarakallaahu ñu ngi ci jéem kemtalaayu li ñu man ko e, defee rek la sëriñ Moussa Ka waxoon rek ni li may nelaw nelaw du teema yeete li may gëlëm-gëlëm du teem a woote amaan na kuy nelaw nelaw lu ngir réer su dee fee yeete dootul yàndoor kon tabaarakallaahu ñu dellu di waxtaane e, sunu diine di waxtaane it sunu àdduna ndax da ñaar yoo xam ni benn mënul dem bàyyi sa moroom nangon na ci serigne nangoon nañu ci serigne Cheikh diane si Al Maktoum muni bu suuf si amul won bu aduna amul won solo yonent ba mu yegge dem ca kaw seti boromam ngan du delu si day teggee nonu rek waye aduna ken mënu ko dag wacc ndax ci ngay al akhirah ju dul jeex aduna dafa di dëkkuwaay buy jeex àllaaxira di dëkkuwaay bu dul jeex waaye yàlla ci mbaaxam ak xereñam ak yéene bu mu yéenee jullit mu jox leen benn espace bu gàtt buy jeex ba pare privilège leen ni leen mën ngeen caa jëf jëf jëf ju jëm fu dul jeex nekk fa ba abadul abidin yonent bi sallallahu alayhi wa wax ci ni ba tax na boo nee bërit ngir sa mbirum àdduna ginnaaw boo ko sellalee teg ko ci yoon melal ni ku fi dul jóge ndax fonk ga nga koy fonk ak yitte ja nga koy jox ak gëdd ba nga koy jox waaye boo boo tourné it ba nekk sa mbiru àllaaxira itam sellal ko sellal goo xam ne ba mel ni ku ñu ni tey tey tey wala suba nga fi jóge imal li dunyaaka boo dee jëf jëf ju concerné sa àdduna ka annaka taishu abadan melal ni koo xam ne doo fi jóge wax mal li axiratika boo toll ci sa mbirum àlaxira nag ka annaka tamutu gada nga mel ni ku fi war a jóge suba boobaa kan ban bu ci nekk la nga ko war a jox di ko ko jox ak wabtaxi fi ma ataaka allahu daaral axira wala tansa nasibaka min addunya waaw bu ko defee nag ñaar yooyu fokk ñu di ko waxtaane ñi nga xam ni nii dañu ne dañuy sellal di topp seen mbirub àllaaxira ba mbirum àdduna amuñu ca benn cër nee na ñooñu ba tey ëppal nañu ñi nga xam ni dañu topp seen mbiru àdduna xabaabal ci ba seen mbiru àllaaxira dikkul ñooñu itam ëppal nañu li gën daal mooy digg doomu gi mooy nekk ci diggante bi ndax bu dee dangay jëf ngir sa àllaaxira boo dëggee sa tànk ci ni la ko yàlla sant ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam àdduna yi tamit nga refee wi ci noonu euh, di nga ci am loo xam ne mooy gën nga fetteerlu ci wenn ci ñaari xàll yooyu te tegoo ko ci jaar ci alxuraan ak sunna ma dina ci joxe piri ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni nit dina jëf-jëfi àdduna nit dina jëf-jëfi safara ñépp di ko xool di gis sawara ci jëmmam ndax jëfam waaye nee na ñu dem ba dee dese ko séquence bu ndaw rekk am lu ca sababu lu mu jëf dogal ba wëlbatiku mu dem aljanna wala nit kuy jëf-jëfi aljanna ku ko xool xar kanam aljanna ngay gis ci moom ba dara desul lu génn àdduna dogal ba ñëw am lu mu jëf dem safara yooyu yëpp dinay am waaye mag ñi di ci misaal ñaari nit ñu dëkkoon ci benn euh, dëkkuwaay bu doon ci jamono yi mën nañ ko wax étage kenn kaa ngi dëkk ca Euh, troisième étage keneen ki dëkk ci rez-de-chaussée ci suuf waaye ki ne ci suuf moom tànn na jaamu yàlla boolewu koog daara ma ngay julli ma ngay woor ma ngay def lépp loo xam ne nii dina tax a jege borom bi moom mi ci suuf ka ca kaw itam tànn na ba kanam tànn àdduna lu ko neex rek ma ca nee ñu yàgg ca lool ba bés ñu géntandoo ñoom ñaar benn guddi e, ki nga xam ni moo nekk ci suuf te daan jaamu yàlla lool di ko sellal lool gént am lu ko wax ni ko alaaxira ji nga topp ak jaamu yàlla bi nga topp dagg àdduna wacc wàcc ko ci dara loolu kenn santu lu ko lu bon bon da nga war dem seeti ki ci kaw tey noos nga waxtaan ak moom ñam ci àdduna bi tuuti te yow sax ni ko te yow sax war ngaa dundaat fukki at ndax ku gudd fan ngay doon soo demee topp topp sa àdduna noos ñam yu neex yi boo ko defee fanweeri at tuubaat fukki at yi ci des nga daw delluwaat ci yàlla moom loolu la gént mu fanaanoo bu xëyee kon seeti waay sàmba àdduna moom bu xëyee seeti ko loolu la fanaanoo kaca kawit gént ñu ni ko topp nga sa bakkande yaa ngi noos yaa ngi mooy yaa ngi def lu la nekk te nga seeti mbokk mi ci suuf di jaamu boromam xanaa gisoon ni mu mel soo demee nga tarbiyewu ci moom ànd ak moom mu orienté la wax ko wax ba bët yi taa moom mu am intention bu xëyee ñëw seet si ki ci suuf waye ndekete li yàllay def amu ci ñom ñaar kenn ko wara dundat ñaari fan yu mat ki ci suuf bi mu joge tek fa téré ya kurus gaag lepp ni ma ngay séti samba aduna ma pour waxtaan ak mom and ak mom ca lola ca ca kawit wara bayyi lepp lu doon po sangu ba set sollu set pour set si ci suuf pour and ak mom ci yalla ke ma nga joge ca kaw 3e étage ci mi nga joge ci rez de nee na ca deuxième etage lañu ñu ñoom ñaar fu ñu nuyoontee kenn ku ci nekk yàlla jël sa ruux nee nañ ki nekkoon ci suuf daan jaamu yàlla lool dogal ba ñëw na safara la jëm ka nekkoon ca kaw daan def caaxaan te am yéene yi fanaanoo dem jaamu ji yàlla dogal ba ñëw na mu dem safara mu dem aljanna mu dem aljanna moom mi daan fo ke daan jaamu yàlla dem safara loolu xam nga dafay firi li Cheikh Omar Fouti yu taal wax ni li logique nanguwul te am na li logique nanguwul logique mooy moom la arab di wax mantiq mooy xam-xam bi ñuy natte xalaat ba xam jub na mooy logique Cheikh Omar dafa wax ni li logique nanguwul te am na mooy di jaamu yàlla ba ñëpp xam ne jaamukatu yàlla nga nga dee dem safara ak di mooy yàlla ba ñëpp xam ne mooy katu yàlla nga dee dem aljana nee na benn logique nangu ko te am na ndax nee na dafa am benn nitu yàlla bu dëkk ci benn immeuble boo xam ne bu kawe la di fa jaamu yàlla pendant soixante-dix ans musul wàcc lu nekk ko lu nekk ko fay fekk ci xéewal xam nga buñ ne immeuble ak jamono ji ak jamono jëkk ji sax dina la xaw jaaxal mais gratte-ciel yi ngay gis nii ci euh, euh, États-Unis di ko gis ca Canada di ko gis ca Europe amoon na waaye nii ñu ko taarale la amul woon mais amoon na misaalam te mooy montagne yi lañ daan yàtt dëkk ca kaw montagne yu gudd soo demee Italie boo demee fi ñuy wax Avellino ngay dem ba Rome nga continuer dem ba Napoli nga continuer waat dem Avellino am na fa ay montagnes yoo xam ne 900 mètres guddaay bi ci kaw tubaab yi dañu koy yett dëkk ca kaw. moo tax li góor gi waxoon ni alquran sax boo koy firi te sa tànk guddul nga dem fu bëree bëri léegi-léegi prime day des parce que da ciy am yoo xam ne alquran da koy tudd ba pare ba sa tànk demul doo ko xam waaye montagne yu toll noonu amoon na boñ dee firi di wax ci nit ñu jëk ñi mën nañ ko firé immeuble mom la yàlla junj ci alquran irama ci suratul fajr irama dati l allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamuda alladina jaabu saxra bilwaadi wa firauna di l awtaad alladina taxaw fi l bilad fa aktaru fiha al fasad fa sabba alayhim rabbuka sawta 'adhabin inna rabbaka labil mirsad yoyu borom bi doon junju nga xamni bur yu jëkk yi ca kaw lañu dekkone nga xam ne terewul bu ñu dee dañ leen di yoor ki buum ci suuf ñu suul leen ndax kenn du leen rob ca kaw nitu yàlla bi dëkk ci immeuble boobu pendant soixante-dix ans di jaamu boromam musul wàcc lépp di ko fa fekk ba benn bis mu ne mi ngi wàcc pour yéemu ci kéemtaanu sunu boroom ci suuf ndax lépp ca kaw lépp kaw yomb yemb na yomb na maa ngi seeti suuf lu fa xew bi may wàcc mu wàccaale morso mburu bu mu doon ndékkee mu des mu téye ko ci loxoom bi mu wàccee immeuble bi rek dajeeg waaju xiif bay lox ñaan ko mburu mi ko dama xiif may ma ko mu jël morso mburu bi may ko waa ji lekk ko ñaanal ko sant ko mais avant muy dellu di yéeg ci immeuble bi yàlla natt ko mu dajeeg jigéen jigéen ju sàggan jigéen ju jongama jigéen ji manipuler ko ba mu njaaloog moom bi mu njaaloog ndaw si ba pare rek daal di faatu fa la yàlla jëlee xam bi ñu posé jaamu yàlla gi mu doon jaamu di ko sellal pendant soixante soixante-dix ans ñu posé ko ak njaaloo bi mu njaaloo njaaloo bi dominé gravité njaaloo bi dominé ñu war ko yóbbu sawar mais bi ñu posé njaaloo boobu noonu ak morso mburu boobu mu jox waa ji xiif morso mburu ba dominé ñu yóbbu ko aljanna loolu noo koy mën a atte loolu noo koy mën a atte hmm? kon li Cheikh Omar wax ni eh, li logique nanguwul te am na mooy di jaamu yàlla ba dee dem safara walla di mooy yàlla ba dee dem aljana nee na benn logique nangu ko te am na luy faral di am la dafa naa suma juumul maa ngi def takkaraar répétition ci ndaw soosu nga xam ne moo tëjoon muus mi te daan jaamu yàlla lool nag jàmbaare waaye togg ba pare tëj muus mi au lieu mu jox ko mu mu lekk joxu ko mu lekk ba pare tëj ko ca waañ wa tàngaay waray ko loolu ko yóbbu sawara ak ndaw si nga xam ni prostituée la woon daawul jëfandikoo lu baax ba yàlla nattu ko benn bis mu romb ca teen ba xaj bu mar defi pexe ba xaj ba naan ba màndi ca loola lañu ko jéggale mu dem aljanna loolu it boo ko dellu siwaatee ci wax ji da ngay xam ni eh, li logique nanguwul te mu am mooy di mooy yàlla ba pare dem aljanna ak di jaamu yàlla ba pare dem safara terewul nag mutasawifun yi ñoom du ñu tudd ci seenu jaamu yàlla dañuy bañ ku ci tudd safara ak aljanna parce que nee nañu loolu commerce la ku ci mel ne rabiatul adawi wax na ko nee na mbirum aljanna ak safara yàq na pas-pasu jullit yi parce que julit yu ci bari intérêt par intérêt lañuy ñuy yalla intérêt mo lan intérêt bu ñu wax aljana motax ngay jaamu yalla yow dal dañ la tegal ben cadeau choono yi ngay sonu yépp cadeau bi rek nga bëgg gagner waaw wala ben prime buñ la tegal nga fexé pour gagner ko lolo la tax di son waye yalla kay ñoru la yalla safu la yalla defo ko kilifa waye comme tegal na la cadeau cadeau bi moo nga diko ko jaamu motax rabi al adawi neena mbirum aljanna yaqna na pas-pasu nit ñi ken jaamotul yalla te yalla tax kenn jaamootul yàlla ndax xam ni moo la yilif moo la moom moo la sañ jaamuloo te dara du ko ci fekk léegi nit ñi gëmatuñu loolu nit ñi intérêt bi la ñu gëm te mooy ajjana wala ragal gu ñu ragal safara waaw te loolu sëriñ Cheikh nee na rabiatul adawi yi wax jooju mu wax noonu si daaji Malick fekk nangul na ko nangu na ko ànd na ci wax na dëgg nee na moo yàq pas-pasu nit ñi muy affaire intérêt boobu ñu àjjana ndax euh, àjjana li muy neex neex dëkk ak sa borom ko dàq te yàlla du dëkk ko ku yaruwul dëkk ak ku dalul du dëkk ko amul teggin moo tax mag ñi dañuy wax ni ñoom àjjana daal jardin d'enfant la rek waaw ñoom daal loolu lañ ko jàppe danañu àjjana jardin d'enfant la rek waaw xale yu ndaw daal xëy ñoo tax waaye mag ñi dëgg-dëgg ñoom ñu ngi yittewoo gis seen boroom waaw tabaarakallaahu te am na gis seen boroom waaw am na ay am na ay degré ñu ne ci àjjana yi àjjana yi ay degré la ba àgg ci gis seen borom li Cheikhna Cheikh Saddu Abi wax tag bi tagg yonent bi wax ko wax ju rëy rëy rëy waaw Cheikhna Cheikh Saddu Abi mu ne mu ne mu ne yonent bi wa huwa wali wa huwa waliyul muminin wa huwa shafiul mudnibin li nay li da li nay li daaril illiyin wa ru'yati rabbi samad mu ni وهو موم yonent ولي المؤمنين موم moom moom méngoo mooy partenaire u تاي gëm tey tey jëfe seen gëm te sellal moo وهو الشفيع المذنبين itam wax nga xam dañu sàggan jaar ci wenen yoon itam mom mo am capacité ak doole intervenir ramu leen ñaari grade yep moko yor mo mo mo mengo ñi ñi gëm ñi xawa a sàggan di bakarit it moo leen di ramu moom lañu yaakaar ndax moo fi sës li nay li daaril aliyin fexe ba jox leen ali aliyin muy kër gu kawe gogu ci aljanna nga xam ne ñu bari dañu koy ñaan pour dugg fa yonent bi fexe ba jox ko ñooñu waru yati rabbi samat boole ci wan leen borom bi ba ñu jàkkaarloog moom kon gis borom boobu noonu lu lu lu am la su ko defee ñaari mbir yooyu muy àdduna bi ak àllaaxira bi bu ci nekk chemin la am boo xam ni walla benn notice la am boo xam ni ci ngay dëgg sa tànk pour boo ko defee doo ci am euh, rëccute la ngay def dina tegu ci yoon su ko defee it nitu jamono boo ko seetloo dañuy jaamoo yàlla na ko seen na ko na leen ko seen bakkan laaje waaw te bakkan ñaare fa mu lay jëme du doon ñaare fu neex borom bi moom la maxtaar sekk ba mbooro daan wax ne ku def sa bakkan ilimaan dina la julliloo ci jàkka joo bëggul woon julli waaw te bakkan moomu nag lépp àddina ñaare bakkan da cay am doole da cay diig waaye lépp alaaxira ruux daf ci am cër wax nañ ni mboolem yiy dundal yaram ci suuf lay jóge waaye mboolem liy dundal ruux ca kaw lay jóge bu yàlla dogalee nag ba nit ki génn àdduna ruux day ñibbi ca bokkam ya nga xam ne ravitaillement ba fa la daan jóge muy kaw asamaan yaram delluwaat fa nga xam ne la ko daan dundal fa lay jóge te dañu koy suul ci bàmmeel yi muy li ñuy xeeti li ñuy lekk mooy céréales yi mbay meeg ndox meeg yépp boo ko seetloo ci suuf lay jóge ndax yaram it ci suuf la jóge mbokkam la waaw nit ñu ngi ko bind ci ban ñu ngi ko bind ci ban kon suuf la la koy dundal yépp ci suuf lay jóge ruux kaw asamaan la jóge installé wu la koy dundal yépp muy wax yu yéeg li jóge kaw asamaan ak waxi malaaka yeeg li yàlla yeb li jóge kaw asamaan ñëw di dundal ruux ñaari matières yu ànd la ñaar yu ànd la yoo xam ni daanaka xerañu sunu borom rek moo leen mën a boole ndax ku weex tàll tàll tàll tàll tàll muy ruux ak ku ñuul kukk kukk kukk ñu boole leen ñaar yooyu nag bu ki mu daje ci moom jëmm ji mu daje ci moom bu bu farloo mën naa dem ba ruux gu weex ga weexalaale yaram wi tàll ba yaram wa weex tàll leer nañ ak sunu borom bu sàgganee nag yaram wa dem ñuulaayam boobu dema dema dem ba ñuulaale ruux ga wal iyaazu billah bu weexee tàll di ko leer nekk asaabul yamin jëm aljanna bu ñuulee kukk Diko, diko, diko bon jëm asabu shimal wal iyaazu billah yalla ci yalla musal suko defé lay dundal ruh joge kaw asaman lay dundal yaram joge ci suuf bu ñu demee ba yalla dogal ruh tekkaliko ak jëm delu wat ci ay bokkam ya nga xamné ne la ko daan ravitaillé fa lay joge ruh mit wat fa nga xamné la ko daan ravitaillé fa lay joge lola batay da nga ciy dégg ni ñaari patch yoyu muy aduna bi ak alaxira e, ay doomu nday lañu ci fi ngay dëgg sa tànk pour mën a defar fa ca des moo tax dégg naa sunu maam ju baax ji daana wax ni yàlla ñu yàlla musal ci gàttu fan ndax kenn ku nekk jullit bu dee la nga yéene sa borom ci jaamu ko ci at yu gudd rek ci fan wu gudd rek la xaj mu daan ñaan yàlla nañu yàlla may gudd fan tout l'umr kon su ko defee ñu gën a delloo bàyyi xel ni bu ci nekk am nañ ci wàll muy wàllu àdduna bi su ko defee it ñu bañ def lu mel ni ñi yàlla y junj di leen gaaruwaale ni dañoo mujj tànn nag dañoo mujj juum dal di jeng ba mu ëpp jël alalak kër yu rafetek jabar yu rafet ak waruwaay yu rafet bañ ma ci boole daal di may bàyyi ca àll ba may tamit ma daal di gis sama bop nek magum lëndëm bur bi tabaarak wa taala wax ni ya ayuha alladina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah wa may yafal dhalika fa ulaikum al khasirun Serigne Cheikh bi koy firi def ne yàlla neena keur yu rafet ya ngok dëkkee leen voiture yu rafet yaa ngoog war leen lekk yu neex yaa ngoog lekk leen jongama yaa ngoog takk leen waaye ku leen jàpp wacc ma ma wàcc la waaw noonu la noonu la ñu ko firile woon moom waaw yaa ayuha alladina amanu laa tulhikum amwalukum wala awlaadukum an dicrillah fa man yafal dalika fa ulaaika humul xaasiruun bu firi ko piri mu yaatu ni borom bi nee na dëkkuwaay yaa ngoog dëkk leen waruwaay yaa ngoog yu rafet war leen lekk yu neex yàngook lekk leen jongoma yàngook takk leen waaye ku leen jàpp wàcc ma ma wàcc la waaw ah allazina nasulla fa ansahum anfusahum waaw fi yàlla commencé punition yi ak sanction yi mooy ba nga ko fàttee du moom da lay fàtte de da lay fàtteloo sa bopp waaw yàlla boo ko fàttee moom du fàtte waaye day fexe ba nga fàtte sa bopp waaw dootoo xam foo war a dëgg sa tànk waaw ca loola ngay nekk di def doñ doñ doñ doñ doñ doñ doñ doñ doñ ba arriver fenn ni waaw fii fan la ñun la fii mooy bàmmeel alhaakumu takaasur xataa zurtumul maqaabir foofa nag boo fa àggee nag éléments yi nga war a xam yëpp renseignement yi nga xam yëpp yi nga xam yi nga waroon a xam yëpp te mu lënt la keroog na boo fa duggee di nga ko xam kallaa sawfa taalamuun waaw su ko defee itam ñi nga xam ni dañuy xóotal mu tatarrifuun yi nga xam ne seen alaxira jàpp nañ ne loo def sax ñu ne la xaraam na bëgg a daal di jël seen bopp rey ko rek benn yoon waaw dem bàmmeel ya benn yoon rek dootuñu lekk waxuma la lekk waaye dootuñu lekk lu neex duñu sol lu baax duñu duñu bét duñu ree duñu kontaan ni dañuy dañuy dañuy dañuy dëddu am nag délégation bu ñëwoon seet si yonent bi sallallahu alayhi wa ni ko euh, ñun dey dañu laa seet si woon kenn ku nekk nag am na loo tànn sedd ko yàlla ci sa bopp mu leen lan la am ku ni man dey damay julli guddi gii yëpp damay fanaanee naafila ba set du ma am benn waxtu bu may bu may wala benn minute bu may noppalu yonent bi ne ki des yow nag mu ne ko man de ragal naa yàlla ba àgg ci damay woor dex ren du dog benn yoon waaw bu ne maa ngi woor yonent bi ki ci des yow nag mu ne ko man de ragal naa yàlla ba takkuma sax soxna mel na man képp maa dëkk yonent bi ni leen yow moo muy naafi la ba bët set te doo noppalu genn guddi man damay naafila ci guddi gi nelaw ci guddi gi dinaa ci naafila dinaa ci nelaw ni ko yow moom mu dëkke woor abadan man damay woor ak a dog yenn saay ma woor yenn saay ma lekk ni yow moomu nga xam ne nga da nga ragal yàlla ba takkuloo soxna ndaw soosu ci biir di yëngu mooy Aïcha sama soxna la kon takk naa soxna te nag man yargaba am millati fa minni nii ma koy defee ku ko ni defewul da accordé wuñu sa bos sab def yàlla yëgu ko faalewu ko waaw ni may defee ni may doxale ku ni doxalewul waaw moo tax xër xam li ngay def ko gën bari pexe itam saf yàlla ko gën waaw Serigne Cheikh neena na Abdou Hamid Kan daana wax ni man xawma jëf ju reey jëf ju yàlla nangula xam waaw daana wax ni man xawma jëf ju reey jëf ju yàlla nangula xam te jëf ju yàlla nangul rek am solo waaw boo déggee ñu ne xayrul umuri walla xal la jëf joo xam ni dafa néew lool te sell ñu nangu ko moo gën jëf ju bari lool lool lool lool lool te kenn nanguwu ca dara sëñ Babacar Si mu baax ma daana ko lépp daan na wax ni bopp bu rëy tey metti bopp bu tuuti te am jàmm ko gën kon su ko defee ñi nga xam ne ñoom lañuy wax mu tatarifu ñi nga xam ni kenn mënul nekk jaamondoog ñoom te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amal yéene roy ko rek waaye ca fa nga mën a yem doo nga yem mais am na ci koo xam ne yàlla moom yàllaa koy sot sotle xeetu sot goo xam ni boo amul force yu mel noonu nekk sa wet mënoo fexe ba ni fa mu tegoon tànkam dinaa ko fa teg defe ko namu ko defe amee ko na mu ko amee xam nga ne asbatu badrin yow yéefar yi nekk junni yi jullit yi nekk fan ñetti téeméer ak fukk ak ñett ñu jaamaarloo ci ponkal yoo xam ne lu ne la ñuy lekk ndax am yaram ak a yaflu am amul lu araam ci ñoom lu ne la ñuy lekk ndax am yaram nga dajeek ñoom ñuy junni nga nekk yéen ñetti téeméer ak fukk eh, ñett nga duma leen ba dàq leen xam nga ne am na ay force yu nekk ak côté di leen jàppale te loolu alxuraan wax na ko am na ay malaaka yu intervenir yonent bi lu mu mas a dugg bu ca naree ñàkk bu ca naree lompañ sunu borom dina ko dina ko wallu li ci ëpp ko dee roy nag te yooyu amuloo ko fa nga mën a yem rek ngay yem waaw la ca des nga bàyyi yàlla mottali mën na ma inna moo tax mu wax ko xam na ko moom yonent bi xam na loolu moo tax mu ni innamal amalu binniyaati wa innama li kulli imri na jëf yëpp dafay aju ci yéene e, te ku nekk la nga yéene loolu ngay am moo tax nitu yàlla ba ñu ko tëjee kaso mun na ca kaso ba ba jumaa jot mu laaj gardien yi koy garder ni leen fu jumaa jenee ñu ne ko looy laaji jumaa te ne ci biir cellule prison mun leen joxoñ leen ma fan la féete rek ñu joxoñ ko ca koñu prison ba ca koñu selil ba fa mu ne ni ko côté bii day moom fi la jumaa ji féete mu daal di ni bëreet ni ñaadam ñaadam waaxu moo xam ne da nga naan kii day génn cellule bi waaxu ba ca miir ba mu daal di ni tegg loxoom bés daal ne ah dama mënut a jàll de waaye ma mënoon na jàll fii laay aw dem jumaa yéen a jamat na moo tax da ngay defee ni nga mën la ci des nga bàyyi borom bi borom bi mott mottali du taxit nag nga pang-pangal nit sonal leen lu ñu def rek ah nga ne xaram na mas naa ci lu benn waxtaankat euh, conférence bu mag sax wax dëgg yàlla ñu laaj ko ci mbiru salon coiffure yi jigéen ñiy def xam nga yu ci bari foog nga taawil ko taawil mënul ñàkk ndax dafa am ay asbaab yuy am nit dina def loo xam ni day am lu ko ca joo sabab buy tax day mbir dina ca nekk mu araam tey lool lool lool bu subaa mu dagan la ndax situation ba mu la fekk moo koy mooy def loolu mu ni moom bi ñu ko laajee ci salon yi mu ni salon coiffure ku ko ubbi moom waa ji mooy wax de di nga dem sawara ña fa ñëw di la jàppal di ca di fa liggéey dinañ dem safara ñalay indil marchandise dila ko jaay ga di ko dinañ dem safara mom daal lim na ba ñuy fukki nit ñoo xam ni concernant salon boobu ni sawar lañ jëm eh, ki ma dendal laaj ma mané ko mom da war na wax ni daganul rek su ko defé atté dugal sawara ak nak mu bayyi yalla def ko waye mom bu fekké jàng na ci téré yi ni daganul nani daganul rek yam ca té bañu xuus ci ni yalla lay attee ëllëg sawara kamu yobbu aljanna mané ko parce que mbir dina haram tay lool suma mu dagan dina dagan tey lool suba mu araam ki nga fekk muy lekk médd muy lekk yàpp nga ne ko foo ko jëlee mu ni man kat doxandéem laa boo xam ne dama xiif ñetti fan lekkuma te dem naa ba yëg ni maa ngi commencé di miir te amaana lii bu ko nee ma dee ma romb fii benn xar bu dee ci laa dagg nii di ko lekk nga ne ay iskay lislaam autorisé na la loolu kooka lekk ba suur jël menn mbuus def ca la desoon ci yàpp yu gàddu ko di dem ndax bu ko lu mel noonu dabatee te gisul mid mu mën caa lekk kooka di dem même yàpp wi de ci la dagg ngàbb di dem di dem ba yàgg mu romb benn euh, restaurant borom restaurant ba ni ko ñëwal añ mu ñëw kooka wàjjil ko tegal ko ci wetam gis nga keroog ba mu tiimee wàjj boobu ñu ko defal mbuus mee ca la araamoon ci moom bu wëlbati ko lekk ci benn morso rek am bàkkaar kon xam nga ne daganoon na démb ndax ci la añ ba suur waaye bi yàlla dogalee yàlla wan ko loo xam ni lu lu lu lu dagan la lu ko yomb la lee daganoon ci moom day mujj araam ci moom kon mbir dina la araam tey bu subaa mu dagan la loolu la Serigne Cheikh doon wax naan même bàkkaar yiwu jaarul yoon la ndax léegi néeg bii ñu ne la boo ci duggee am na jigéen ju fi ne boo duggee boo séqeek moom am nga bàkkaar bopp dañ laa war a rey dañ laa war a raj mu sa yoonu a sax xañ na ci ci néeg boobu ndaw si ci ne boo duggee séqeek moom ngay taxaw di insisté am ku ubbi néeg bi dugg ci biir delloo bunt bi séq moom génn am yool bu réeréeri moo tax mu ni bàkkaar yi wu jaarul yoon la ki dugg dañ cee dañ koo légaliser digganteem ak moom te yow légaliser wuñ sa diggante ak moom te mbirum sëy nit du ci bàyyi ma bàyyi ma moom amul benn principe wala benn condition bu ñu koy bu ñu koy tënk bàyyi ma moom ku jekku sa morom muy sa jabar waaye bu dee nit day am fu ñu la jaarale moo tax sëriñ nee na bàkkaar yiwu jaarul yoon la ndax lii ñun la boo ko defee am bàkkaar nit a ko fanaanee ba pare am aw yiw hmm? kon kon tabaarakallaahu mbir dina la araam tey la Euh, bu ëllëgee wala mu dagal la tey bu ëllëgee mu xaraam la dégg naa góor gi ca kër Moussa dafa yor dafay jóge ci jàkka ji dégg ko yor am ndëndam di tëgg naan déglu leen ne jàmm la diw lañu ñu jébbal euh, jëkkëram biig la ko jëkk jëkkëram jël di tudd xale bu jigéen naan biig la ko jëkkëram jël góor gi ne ko ah, bu dee ku jëkkëram jël nga tëgg dee di nga tëgg ba dee waaw loola la mu cay wax mooy la mu ca bëgg a wax mooy mbir la moo xam ne nii xaatewul noonu waaye boo seetloo rek maa ngi bëgg a gën a leeral ci li Serigne rek ni bàkkaar yi wu jaarul yoon la su ko defee ñooñu di mu tatarifu ni nga xam ne tey mooy ñu kenn mu jaamu yàlla dem nañu ba sax kéefarloo ay jullit yoo xam ni ay jullit dëgg lañu ñu kéefarloo leen ndax lan dangay doxali doxale nii da ngay doxale nii da ngay doxale nii kon yow doo jullit am na ci kuréel yoo xam ne sax ci réew mi Eh, ñi ñu bokkal lu ñu gëm bu ñu leen di woo mbokk lañ leen di wax ax yi waaye bu fekkee ni yëg nañ ni bokkul leen lu ngeen gëm duñ la wooyee mbokk doomu ndey lañ lay wax pour séparer wane ni ñoom ñooy jullit yi waaye yow doo jullit bu ko defee day feeñ ci loolu day feeñ ci seen sol boo solee yére bu cher mu nit araam na yàq la bo lekke lek gu neex mu ne aram na yàq la bo nané nan gu neex mu ne aram na yàq la dem ba mujj biri seen mbiri bop rek lañuy bëgg waaw waaw ber seen mbiri bop ndax japp ni ñepp ay yéefar lañu ñom ñom nek ño nek ay julit waaw loolu xirtal leen ci lépp loo xam ne concernant mbirum aduna tey defar aduna seen yoon newu te boobu façon itam boo ko defee sa taxawaay day wàññeeku te sa yoolu diine yi day wàññeeku ndax marabu cheikh nee na taxawaayu diine dafa am taxawaayu réew am ndax nee na diine du métier nee na politique tam du métier politique saa à dire taxawaayu àdduna tax may wax mu ni diine du métier politique du métier nee na diine ku ko def métier di ko dundee doo góor nee na politique tam ku ko def métier di ko dundee doo góor lu ca nekk da nga cay sa gannaaw bu jëfandikoo jotee nga jëfandikoo ko waxoon na ci beneen wax moom suñu Cheikh nii diine doomu aspirine la ba sa bopp mettee jël ko bu méttiwul nga teg ko fële ndax yàlla ju ëpp day tasum réew loolu ñi nga xam ne dañoo jàpp ni yor seen kurus ak seen kaamil jonkan fa jàkka ja rek mooy mbirum ya mooy mbirum nit ñooñu lay wax di diine doomu aspirine la dafa am waxtu taxawayu rew dafa am taxawayu diina am mune ne diina doomu asturin la bu sa bop méttee jël ko méttiwul sànni ko ci àll ba amna ci khulafa wi euh bi daf dan def waqaf dama jàpp na Abdul Malik ibn Marwan la wala det ma gorewuma ci de trop waye ci ci xulafaaw yi daal nga xamni ne ba'da ba'da nabi sallallahu alayhi wasallam nekkon nañu umara ci bok ci umara ul muminin bi yàlla dogal danaan def waqafam di jàng alxuraan suba ngoon ba soxnaam di ko wax ni ko yaa sonn nga lii nga nekke mais Serigne Cheikh nee na keroog bi nga xamee ni ahlul xall wala aqd ñëw nañ ni ko waxtaan nañu ba fal la ngay amirul muminina nee na ca la yëkkati kaamil ba ni ko hada axiru ahdin bayni wa baynaka tey jii nga may mujj a gis yow kaamil bi kaamil bi mu daan jàngee waqaf mu ne ko tey tey nga may mujj a gis daal di lem kaamil ba teg fa mu lola bu fekkonté ni jano nañu suñu suñu suñu sunu borom xar kanam ba dina muñ dina ré ndax lamu mu moy dafa wan ni kamil bi muy jang mom la concerné ndax lu ca yiw moom lay wat te tak nañ digam jox nañ ko responsabilité bo xamni ni la nara jëf ñepp nit ñe ko mom julit yee ko mom boko déggul nag bu nit né tégg kamil bi ni kamil bi dootuma la jang tak na la ba nga jé tek nga ni kii sawara la jëm fekk responsabilité ba koy xaar concerne addina bi concerne xeet bi te yonent bi ni man lam yahtamma bi umuuril muslimina fa laysa minhum koo xam ne mbirum julit yi yitteelu la bokkoo ci man demal ma dem xam nga nit ki wax lii dégg na waaye ki déggul da koy critiquer waaw ca la inde woon misaal bi Serigne bi Seydi malik Malick ne demal ca borom boutique ba mu lebal ma fukki dërëm dépense ndax mu gën a gaaw yàlla te am ñu koy ñuy critiquer ni wax ji waru koo wax mais ñoom nee na dañoo miin a borom ba dañu koy def kal dañ koy def kal mais li mu wax xam na ko nee na Alaaji Maalik li mu wax xam na ko waaw demal ci boutique ba ba lebal ma fukki dërëm ñu lebal ma fukki dërëm ma jox ko dépense ndax mu gën a gaaw yàlla xam nga ki toog di ñaan di ñaan yàlla xam na ni wóolu na yàlla sax waaye yàlla nu ne la ma ne man ngaa toog fii yor secours di ñaan yàlla fukki junni suba fii ba weer doo am sax junni te dara du tee yàlla nekk yàlla nga def jaam waaye gis nga boo ñaanee ñaan ñaari waxtu ni bëri takk sa ndigg boo génnee ndejoor wala càmmoñ boo moytuwul di nga dajee ko yor lu diis di ko yenulu te boo ko yenulee mën na laa fay dara bu boobaa ñaan gi day am fu mu tegu waaye moom it yëmu ci ñaan gi dafa def système dafa def pexe moo tax mu ne dawal gaaw ca borom boutique ba mu lebal ma fukki dërëm ndax mu gën a gaaw yàlla loolu waxin na waaye yàlla xam nga ni eh, yàlla xam nga ni ku nekk fu ne koo xam ne soo nee bërit fekk ko fa ko kay kenn du wax gaawaayam ak loolu kon tabaarakallaahu ñaar yooyu mënul ñàkk nit di ko boole di naawee ñaari laaf menn laaf mi di flotte di àddunaal ay mbiram menn laaf ma di flotte di àllaaxira ay mbiram ñaar yooyu fokk ànd dund nit door a mën a yéwén tabaarakallaahu ñu ngi leen di fàttali itam numéro bi muy 88 628 10 95 88 88 628 10 95 sànq mbokk maa ngi def ci annonce bi programme bu rëy boobu nga xam ni yii ñuy junj yépp la koy yaatal di ko développé nag ba mu leer naa ñu ci boppu nit ñi. le 2 le 3 le 4 novembre fi ci institut bi di Cheikh euh, Safi euh, Omar Fouti tal mu di ñetti fan yo xamni fan yi la ñetti fan yi la ñetti fan la gisante namonte woon gisante saafonte e, wax naa leen keroog ni leen journée de formation et d'information la ndax dinañ ci tàggat ruux yi tàggat ci jikko yi ñaanal ci réew mi yàlla aar ko sàmm ko tabaarakallaahu ci xalaat bu rafetu Ceerno Hamidou Yoro Bane di seetu Cheikh Omar nekk ca waar wa waaw wala fi dañoo wax ni ku doon gileem da ngay yenu saaku ya waaye doo lekk repas ba tëdd ku doon gileem da ngay yenu saaku ya lu mu diis diis waaye doo lekk repas ba tëdd waaw maa doon diw waaye dara jaje rek nga doon ak wërsëg wa waaye defoo benn effort defoo benn jihad, sama Omar day jihaatoon na ak jaaseem waaye jaasi jooju Ceerno Hamidou daf ko soppi ay institut soppi ko ay rajo soppi ko ay télé soppi ko ay mosele tabarakallahu loolu mooy li dëgg waaw lii lii lii Ahmed Shawqi wax yaa jizwata tawxiidi hal laki mutfiu wallahu jalla jalaluhu mudkiiki uudwi ila ma kunti fi fajri lhuda umarun yasusuki wal atiqu yaliki ba ca bayit boobu muy inna alladina tawaarasuki ala alhawa bacda bni hindin ki طالما كذبوك لم يلبسوا برد النبي وإنما لبسوا طقوس الروم إذ لبسوك am na ñoo xam ne ñi leen doon na leen rey ñoo sànq seen dono ndax doon nañu dara jaja doon na wërsëg ya waaye ragal yàlla gaag yiw gaag mbaax ga daa jaar fii ñu jaar fële eh, tabarakallahu programme boobu nag yàlla dogal am na eh, njàngum alquran am na zikr mooy yi ñu tagg yonent beeg yi ñu bàkk sunu borom am na jullik juma ca vendredi ba yëpp tabarakallahu am na ay causerie am na cérémonie officielle tabarakallahu ci le trois bi di ñaan daal ñëpp ñëw fekk si ko ñoo def ko itam ci ndigal mu def ko ci ndigalu kilifaam Thierno Bachir Tall al Khalifa lil usra al umariya nga xam ne moo koy présider chaque année ñëw wane cofeelam ci taalibe yi wane cofeelam ci Thierno ñëw waxtaan ak ñoom delloo leen ci yàlla boolewaat seeni xol li El Hadj Abdou naan wax naan yéen yàlla tàppe xol yi moom Thierno Bachir mu tàppeel leen xol yi waxtaan ci ak ñoom ñaanal leen yàlla. te ku ne xam na ni at yi mu toll bu ñaanee sunu borom sunu borom nangu ko ba dégg naa ci alxaaji abdul aziz si benn bayit bu mu nettali mu ni taqabulu saayi wa maxwu zalali libn thamanina bi mannil mufdili mu ni taqabulu saayi loo jëf yàlla nangu ko wa maxwu zalali rëcc-rëcc boo def yàlla far ko jéggal la ko libni sama niina ñeel na borom quatre vingt ans boroom juróom ñetti fukki at yoo xam ne ci diine la ko am boobu boobu yooyu kado ñeel na ko moom na ko bi man nil mufdili loolu nag kiy joxe ngine ngëneel muy sunu boroom moo ko may borom juróom-ñetti fukki at yu dund ci diine taqabulu saayi wa mahwu zalali libni samaniina bi man nil mufdili Thierno Bachir moomu tabaarakallaa war a ñëw e, ñaanal mbooloo mi sunu mbokk al fadilatul ustaaz Abdoul Aziz Fall tudd nañ ko ci annonce bi nga xam ni tabaarakallaa mooy waxtaan fi tasawuf ci rajo bi e, mooy def waxtaan woowu te ku yàgg dégg mu traité thème e, boo ci ñëwee di nga am satisfaction incha allah Thierno yàlla def ko dimbalee rajoom bi xam naa man rek maa ci xaw a doy waar waaye ay nit ñu am solo nit ñu jàng lool ba jàng jotee te dégg la ñu jàng ñoom la ko yàlla baaxee kon tabaarakallaahu allo. salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatulah. Saas Masila Kan. waaw ko kan la. Alioune Dieye lañ koy wax marti Liverpool. Habib. Alioune Dieye. eh Alioune lay ziar. Dieye ñu ngi ziar Dieye naka yi tey. ñu ngi sant bu baax a baax alhamdulilah. alhamdulilah alhamdulilah. yéen ziar waxtaan rafet na neex na lool. Ah, waaw yàlla barkeel la. di nga nekk ñuy topp si affaire bi ko waaw waaw moom day moom day am na ci moom cofeel lool wax dëgg yàlla. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan moo tax moom dañuy wax ci moom rek dañuy dañuy bëgg yàlla sax. wallaay moom de dafa jàngale lu ne nag moom moom. moom moom enseigne enseignement rek laa la mën nañ cee yem waaw. fekkeewu ma am njàngalem di ci direct waaye dama ko seet nii nii ma am ay yu bëri di dégg wax nga dégg waaw chaque jour mu joxe leçon daal. moom day mën nga cee yem tey jii boo amee problème bu la jaaxal nga bëgg cee am orientation concentré wul benn waxtu déglu ay waxtaanam ay différents waxtaanam di nga ca di nga ca déglu la orienté ba nga xam fi ngay teg sa tànk wallaay wallaay ndeysaan loolu la ko yàlla des am na ay masala ay ay ay addis yoo xam ne sax moom bu la ko turee ni nga koy déggee day gaaw lool lool day gaaw day gaaw maa ngi ciy nettali aaye bi mu doon bi mu ñu doon firil wamaa rama wamaa ramayta is ramayta walakin Allaah rama xam nga foofu firikat yi naan yàlla dafa wax ni wamaa ramayta ba nga wamaa ramayta jamuloo jam jamuloo id ramayta bi nga sànnee walakin allah rama waaye yàlla moo jam effectivement la leer na sax waaye da koo firi firi bu gën a leer bi mu koy firi def ni sunu borom nee na soo dee sànni tollaleel sa mbagg ak sama mbagg ma jël saan wa teg fa nga bëgg ñu ne yow a wallaay ndeysaan <laughs> dégg nga wax ji mu ne boo dee sànni tollaleel sa mbagg ak sama mbagg ma jël saan wa teg fa nga bëgg ñu ne yowa ah. wa maa ramayta id ramayta walakin allah rama wallaay ndeysaan moom tabarakallah noonu la ko yàlla bindee waaw wallaay wallaay c'est que jamono gi dafa toll boo xam ne dafa jaxasoo jaxasoo boo xam ne nii mm-hmm. la waa ji waxoon ne ku ci bëgg génn taxawal déglu borom xam-xam rek kese moo lay dimbali waaw wallaay moo lay dimbali mais da ngaa bëgg a topp pëcc xool bile doo dem doo ci doo dem doo ci mës a génn mukk doo ci génn doo ci génn waaw su yàlla dimbali daa nga am loo jàng tuuti mm-hmm. yàlla dana dimbali nga nga am loo mën a taxaw jaamu yàlla. loolu dëgg la loolu dëgg la almaktum doon wax de connaissance est le premier ennemi de l'homme mu ngi noonu mu ngi noonu boo xamul yow kay sa moom réere sa bopp réere jamono ñàkk xam-xam mooy mooy noonu lu jiitu ci yow ah. musiba dal la ah. musiba dal la bu réere mu ngi noonu loolu mooy li am ah, maris bi ne wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man man araad dunya kon lépp daal ci xam-xam noonu boo bëggee àdduna jàngil xam-xam boo bëggee alaxira jàngul boo leen bëggee dorom ke ñoom ñaar jàngil wallaay ndeysaan man de wax dëgg yàlla sopp naa sa numéro téléphone sa bu ma rempli mu jël waaw waaw waaw après après dinañ la ko jox wallaay ndeysaan la ko jox incha allah boo wootee ci suuf rek yi am ñu da ngee suivre euh, allah incha allah yéen yàlla jàppale yàlla yàlla yokk la mm, amin amin amin amin amin amin lu kawe njort ci barka Alxuraan amin après numéro bi incha allah dinañ la ko jox waaw incha jërëjëf Alioune yal na yàlla barkeel e, tabaarakallaahu loolu mooy li ci ne Alioune ñu ngi lay sant bu baax a baax waaw nee na soppe Serigne Cheikh la waaw Serigne Cheikh day am na ñu ko sopp ñu bëri waaw waaw waaw ah, léeg damay xuloo ak e, e, ñenn nitu yàlla yi ñi nga xam ne nitu yàlla lañu ñu te waaye nag li sidaaji Malick ni inal inal mashariba fi ixtilaafin qariran nitu yàlla yi mbalka yi ñuy naan day wute waaye bu ko defee ñaari nitu yàlla yi yu jaamaarloo moom noonoo loolu moom day daal di yéeme waaye Serigne Cheikh moom li mu ci jàngale nee na wàllu yi yëpp ay xarit lañu fóore yëpp ay noon lañu waaw nee na wàllu yi yëpp ay xarit lañu ay soppe lañu waaw fóore yëpp ay noon lañu waaw allo waaw eh, kon tabaarakallaahu eh, moo tax ñaaree boo bëggee xam sëb sëriñ wàll yu la wala fóore da ngay toog fi wetam rek daal di tudd beneen kilifa gu yàlla may beneen sëriñ bu yàlla may nga déglu ko ba xam bu ca tegee lu kenn mun mënta dégg rek nga xam ni sa sëriñ bi du wàllu yu fóore la bu ko ko lee nag ndax loola yàlla ko kon tabb ni mu la ko tabbee yow mii nga nekk nitu yàlla yàlla def la ko teg njaboot sa ginnaaw kële noonu la ko yàlla defee nitu yàlla teg ko ci njaboot bu dee seen nitu yàlla wér na nag bu sa taalu bi te yow rek na tudd beneen nitu yàlla ci sa wet ba xam déglu la soo ca tegee xeebeel wala wàññi wala cipatu wala wàññi cër ñu xam ne lii moom jikkoy fóori la waaye du jikkoy wàll yu waaw léeg-léeg nga toog tudd ab sëriñ am ko ne ah ñooñu dee ay espèce sëriñ lañu rek ñooñu dee xam nga moom nangam dañoo topp àdduna ñooñu dee nangam waaw wala ñooñu de xam nga xamuñu dara nangam nangam dañuy fo rek ñooñu ay politiciens lañu nag foofu moom sëriñu Tiwaawan moom looloo diw xasan moom boo leen tuddee am ku ne ah ñooñu de xam nga ay espèce politiciens lañu rek ñoom du ñu ay sëriñ waaw waaye daal lu mu ci mën a doon fóor ak nitu yàlla moom du benn waaw nitu yàlla yi moom ñoom ñëpp ay soppe lañu waaye fóore yi moom tabaarakallaahu moom ñu ngi noonu ci tojante yi bopp lañ dëkk waaw looloo tax Cheikh Ahmad Tidiane Chérif nii maa fil kutubil fiqhiyati ilal xusumaat nee na téere fiq yi daanaka xuloo xuloo wu jeexati na xuloo lu waay wax sa morom weddi ko gis nga moo tax ma ne xam naa syndicat oustaz yi waroon nañ koo créer ñu ànd boog jéem a yéenante jàmm ndax damay gis ne ñaare chauffeuru kalandoo yi ay xarit lañu chauffeuru tax yi def nañu association daanaka waa même ñi nga xam ne dañuy yett ay jémbe sax def nañu ay association ànd nekk benn waaye ustaas association ay ustaas yi kese yéeneente jàmm di yëkkateente ka sagalante doo ko mës a dégg moo tax seen enseignement bi du dem néew na ci nga dégg ustaas buy wax am xarite ustaas mukk du du leen sax jéem a toppatoo ndax li na ci seen biir mooy kenn ku ci nekk booy déglu sa moroom ustaas la nga waroon a jéema xantewoo mooy yëg ne xëy na am na ci loo xam ne xëy na jaar na yoon nga apprécier ko la ca jaarul yoon nga jël ci note boo gisanteek moom waxtaan ak moom ci njekk ngeen waxtaan ci waaye dangay bàyyi ba toog ci biir mbooloo daal ni ustaas sàngam de baat sàngam ba mu koy firi nii la ko firee te noonu du noonu nii la waaw ñun yooyu rek ci loolu lañuy dox ci yooyu lañuy dox su ko defee nag yàlla nag boo nekk nag ustaas boo am teraanga ba dee ustaas bu am teraanga moom yow dugg nga niru ba dootu ñu la dégloo noppam dajoor mukk noppam càmmoñ rek waaw ndax moom xamatuñ lu ñu lay waxal lu dul rek di seet la ngay wax di seet wér nag ak wérul ndax loolu rek lañu am pour màbb la weddi waaw ah moom de xam nga dafa yeewu rek moom de xam nga amul xam-xam moom de nangam nangam te damay faral di wax ne ñaari ñaari mbir la yàlla laaj nit tedd ci àdduna ak dem àjjana gis nga loolu bu ko murit bi amee te ba amu ko murit ba gagné na ba faw tedd ci aduna dem aljana bu ko murit ba amee tiijaan ba ñàkk ko murit ba gagné na bu ko xaadir ba amee tiijaan ba amu ko xaadir ba gagné na ñaar yooyu nag muy tedd ci aduna nga di ko def ci jaar ko fu dagan ba yàlla teral la lola waay mën a wax lu dul iñaan waxul li nekk léegi kooku nag na la ba alakhirah ba xam luy xew ki ngay ki nga ki nga ki nga naq du nag teraangaam di ko teg ay baat ndax teranga bu ko yalla jox ak di jam nga ni da ngay xaar ba alakhirah ba xam lo ko yalla faye ñu dem ba alakhirah nga doxantu seen ko ca lale aljana ya mu lay ca dubul li aljana ya jarul nga nan wayu lewon wessna dur na la karawas parce que fexe na ba di tedd ci aduna tedd alakhirah yow nga ci àll bi taxawal dafa am lu ñu wax wasila am lu ñu wax gaaya xam-xam ak yooyu yëpp ay wasaa'il la yu nit di jaar pour atteindre sa objectif ci wàllu yàlla raaya bi nag mooy li nga xam ne loolu la xam-xam di jariñ nga am ko yow lekk buñ la nee lekkal lu ma koy doyee suur su ma suuree mu jariñ sama yaram ki xas suur ba pare aw yariñam yaramam jariñu ko kenn du ko forcé si kaay lekk waaye nit ñi dañuy jaawale wasila ak raaya fi nga xam ne nii la ngay la ngay la ngay nër nër yi fa mu la war a jëmee foofaa am solo kon tabaarakallaahu ustaas yi war nañoo góorgóorlu bu baax nag jéem a jàppalente nag waaw te woyefal wàcce seen bopp nag tuuti nag woyef waaw te nangu ku leen ku leen ku leen ku leen critiquer tamit nga nangu ko nag waaw parce que yooyu tamit eh, day faral di day faral di dal yenn borom xam-xam yi waaw doo leen rectifier benn yoon waaw Serigne Cheikh nee na seen saybatu daf nu daan jàngal ni baat sàngam nangam lay firi ba nuy dem nu séen ko mu def tànkeneen di ñu dab Nan leen naan baat bi ma leen waxoon euh, du damaa du noonu daw dabi ña ca des loolu kuréel mënu ko da nga di bàyyi ci bir rek ndax bañ ñu ni sëriñ ba xamul li sëriñ Abdou mas nañ ñu nettali sëriñ Abdou Al Amin yel nak yalla doli leer neena dafa am ñaari ñaari talibé yu bokkon dara di jang ba yalla dogal euh, ñu dem ba mage ba ku nekk delu sa dekk nekk fa sëriñ nekk fa iliman ñoo bokkoon daara ñoom ñaar nag nee na kenn ki ni maa ngi dem seeti sama mbokk ma kat ndax bi nu teqali ko ca daara ja ba tey dégg naa imaam la comme man ca dëkkam naa dem dem ziyaari ko nee na ba mu demee juste fekk kooku na ci dëj ndax mbokk menn mbokk gaañu ca dëkk bi mu ne ko ah, yow day ngan gi de naroon naa neex loolu waaye da maa fekk ci dëj waaye xanaa ñu ànd rek dem ca toppatoo néew beeg yooyu ah gan gi ànd ak moom nee na biñ dee ba ca armeel yi nena mu gis ñaari nit ilimaan gi woo leen déey leen ñu dem jagat Panu soow soow soow yi ñu naan soow naqaw ma paanu soow daal lañu jagat teg ko ci buntu armel bi doofu fekk robaguñu biñ defee loolu nag gan gi ya man di sama mbokkum talibi mi ma jànga ndool ba mu ñëw fii di imam li mu def man xawma ko waaye xaaral daal di ko ni sëñ bi ma gis la daal di koy lëng ba ca sori ni ko mbokk sama euh, paanu soow bii nu mu demee mu ne ko waaw paanub soow bi de xam nga ni ñu ko jànge woon ci daara ja rek laban bu ñu wax ni dañu koy def ci bàmmeel bi mu ne ko ah du laban de labin la labin la xoolal masque gi du laban de mu daal ne ah daal di àndaat ak moom ñu daal di woo ñaari gaa yee jagatoon paan bi ni leen jël leen paan bi dellool ma ca kër ga ñu jël paanu soow ba delloo ca kër ga sëñ Abdou nee na ñaari supérieur lañu parce que ki nga xam ne moo gis gravité bii daal di koy kobas ne ko ma gis la dem ba ca àll ba ak moom supérieur dëgg la te am na sutura te xam na nu ñuy critiquer borom xam-xam na ki ñu critiquer supérieur la ndax bu doon nit ku rëy day gis bopam ni ko da ngaa jàng ma jàng muy indi polémique ak coow dul jeex waaye nee na ñaari ponk la ñoo xam ne kenn ku ci nekk nañ la yar nañ la ñooñu nag ci la ustaas ci roy waaw te loolu la ñu war a roy mooy mooy tax seenu yoonu jàll seenu yoon jàll bi ci des itam ñu jéem a commencé nag di jàppalante nag waaw ndax loolu tamit du ci wàññi dara ndax boo dee borom xam-xam bu amul dara waaye xam-xam rek nga am ngay wax nit ñi di ci kontaan nit ñi di la xam ngay wax di jariñ sa xam-xam mu yiwu rëy ngay jariñ sa xam-xam ba léegi nag xam-xam bi jur na alal commencé di jariñee ci alal ji ni nga doon jariñee ci xam-xam bi ba ñëpp xam la commencé di jariñee ci am-am bi ndax bu njëkk miskin nga woon baal nañ la ko xam-xam rek lañ soxla woon ci yow waaye léegi dootoo miskin léegi millionnaire nga na nga daan waaraatee ba nit ñi bëgg la nga jariñ leen xam ñu xam la mu yiwu rëy ba yàlla dogal alal tàbbi si fa nga jaaroon ci xam-xam bi jaar ceeg alal mooy dimbali nit ñi ñi nga tane nga dimbali leen moo xam ci asatise yi la doon moo xam ci waa dëkk bi lay doon loolu mooy honnêteté loolu mooy ngor loolu mooy delloo mbattu ca ndaala yal na yàlla kon tabaarakallaahu nu ngi yemale sunu kàddu foofu ndax waxtu wi dafa daf ñu dab wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.